yoonu saxaar gi itam continuer di dox njaboot gi Cheikh Modou Moussa Fall nekk ci bopp njaboot gi liggéey ba di dox sëñ Moussa di dem ak a ñëw mag ñuy dem ak ñëw njaboot gi di baagante di seet si liggéey bi Cheikh Mouhamadou Lamine Baara di baagante ndax moom bi liggéey bi damaatee rek danuy dañuy soxlaatut daara tarbiya ñëpp nañ dem ca liggéey ba nii nam liggéey bi di di di dox noonu Euh, am na benn bis euh, Cheikh Mouhamadul Moustapha ñëw fa wax leen ni leen dama bëgg bu ngeen àggee ci dimanche muy bis boobu nga xam ne du ngeen ci liggéey ngeen tànnante seen biir ñëw Touba seet si ma taalibe itam def noonu tànnante seen biir ba am quatre-vingts personnes ab benn oto boo xamante ni ni ñu wax jaaji Juuf taalibe sëñ ma ndumbe bu dëkkoon Ndula moo leen abal benn camionnette beneen camionnette bi ci des bu ñuy wax du Ngone Ndaw doon ab transporteur bu doon daw Mbàkke Jurbel moo leen abal ab camionnette am ñu def ci quatre-vingts personnes fekki Cheikh Mouhamadul Moustapha Touba bi ñëwee ñu ngi ko fekk ci kërug Daaru Xuddoos gi ñu ngi ko fekk boobu ci benn baraagub dénk bu rafet boo xamante ni sëñ bi ra xujje mi taw sëñ mu ndumbe moo ko joxoon sëñ Moussa Addiya waa dëkk bi dañ ko daan seetaan si ndax rafetaay bi nga xamante ni nii loolu am na sëñ Moodu waajal leen ay xéewal yu bare bari yoo xamante ne nii ñoom rek a tax ñu ñëwee eh, kuy wax sëñ musaa Ndiaye daal ni bu kenn joxe loxo gis ki rek doy na nañ koo xool rek bi ñu jàmmante ak moom ba pare sant leen wax yaddu jaañ ni ko ne leen yóbbu ci gannaaw xewal yooyu mu doon waajal na leen ko jox maxtar Jaañ daan ko wax yeddu euh, loxob sëriñ bi moo tax ñu naa ko yeddu jaañ waaye maxtar Jaañ loo tudd am itam bokk ci talibe sëriñ Muusaa yi ci njaboot gi ñu joxoon sëriñ Tuubaa la bokkoon te yeesalaat pas-pasam ci Cheikh Mouhamadul Moustapha bi nga xamante ne ni xewlu nañ ba dellusiwaat ci jataay bi ñu toogoon ak Cheikh Mouhamadul Moustapha la sëñ Mourou Moussa laaj ni tax Mouhamadul Fadel a ngi fi ñu ni ko wax daana génn de waaye fan yi mi ngi fi mag ñooñu wax nañu booba sëñ Fallou bu yoor yoore mi ngi toogi fii kër sëñ Saliou gi nekk ñu ne ay xay yu bare bari moo fa toog booba foofu mooy yoonu Darou Mouhty yi Darou Mouhty yi foofu la daan toog ñu mu ngi sol benn grand boobu palmaan ni toog ci tab ab tabul yëpp dénk sëñ Moussa Diaye ko ma nga fa mu ne ko kon ànd leen dem ngeen siyaari ji ko su ngeen paree ngeen door a ñëw yeewi ku dellu ca liggéey ba bi ñëwee foofu sëñ Fallou lañ waxoon si sëñ rek lañ wax mooy bu ko kenn jox loxo na ñëpp toog rek gis gi rek doy na ñu toog sëñ Fallou jàmmante ak ñoom wax leen ni leen ni nag da dégg tey sama cant sama làmmiñu bopp ak seeni nopp ndax uh, lii ngeen ne rek mooy sunu yitte dara du sunu bëgg lu dul bëggu Cheikh Mouhamadou Moussa rek te mooy bëggug sëriñ bi ni leen nag na ngeen jaar ci biir armeel yi xuus fa ba ñu tëdd ca barab ya xam ne ñu doon liggéey yoonu saxaar wi dikk nañ ngeen door a dellu nga xam ne bañ jógee foofu sëñ Fallu dañoo jaar ci biir armeel yi xuus ci biir armeel yi génnaat door a dem ci Cheikh Mouhamadul Moustapha mu yewi leen ñu door a delluwaat liggéey ba des noonu di di continuer di dox tabaarakallah yàlla di ci def sutura ba bi nga xamante ne ni liggéey bi jeex na nga xam ne liggéey bi yoonu saxaar gi diggante gas bi fukki weer ak juróom la ci des mooy liggéeyu technique bi muy teg feer yi di feere ba ak si Tuuba saxaar gu ndaw gi tomboro bi sarse xeer yu weex yi nga xam ne mooy dëgëral yoonu saxaar gi liggéeyu technique bi lépp jeex ci le 14 février 1931 le 14 février 1931 liggéey bi yoonu saxaar gi lépp ñaari at la ak ñeenti weer léeg leen nag nga dégg ci taalibe yi ñuy wax naan juróom-ñaari weer la waaye juróom-ñaari weer moom gontron bu baax sax ma ne su ko caa def waxantu ab tëli ab yoonu saxaar gas bi fukki weer ak juróom la ginnaaw bi liggéey technique bi door caa toll nga xam ne wax nañ ñi benn uh, guddi tomboro bi nga xamante ni njaarim la tàmbalee di sotti xeer yu weex yi nga xam ne mooy dëgëral yoonu saxaar yi benn yoon la klaxonné guddi ci gaar bu mag bi mu klaxonné nee na sëñ Moussa daa fekk muy tibbaate reer mu laaj yëngu boobu lu mu doon ku ñu wax sëñ kër Guèye dëkk Makk Bara Guèye mooy bàyyub sëñ Cheikh Guèye buuba ñu miin Daaru day ko xam moo ko wax ni ko loolu day saxaar gu ndaw gi dëgëral yoon saxaar yi la sëñ Moussa ndax yàlla dee suma jàpp ba di ma suul looy pax ndax yàlla dee suma jàpp ba di ma suul looy pax nga xam ne bi mu ciy dugg ñu baree bari doon nañ wax ni tubaab yi dañ ko jàpp ba cëgum dara kàmm réew mi ni taras kenn amut loo lekk mu song àll bépp mu gas ko naan day day suul ay weñ day defar yoonu saxaar bàyyi ko rek tubaab bi nga xam ni kon am na ñoo xamante ne nii jàppoon ni dana am jafe-jafe ak tubaab bi moo taxoon ñu nëtër ci liggéey ba waaye gàntuwuñ liggéeyal sëñ tubaab waaye dañoo xam tubaab bi fi mu jaar ak sëñ bi te jàpp ni itam ni xëy na contrat bi yi nga xamante ne ni moom la Cheikh Mouhamadou Moustapha digge diggam ak tubaab bi mënu ko remplir te bëgguñu buy am jafe-jafe ñu cay bokkale moo tax seetaan bi bari woon lool waaye nag moom day jàmbaar joo xamante ne ni du dellu gannaaw bi nga xamante ne ni nag yoonu saxaar gi noppi na mu des inauguration bi muy ñu daloo ko loolu daloo bi mi ngi am ci le 19 mars 1931 19 mars 1931 ci la gouverneur général brevet joxe ndigal képp koo xam ne da liggéey ci administration français léegi ñëw ndakaaru koo xamante ni ni tëngéej moo la gën a jege mën nga faa taxaw saxaar gi bu fa accès dana ralentir ñu war a yëg ñëpp boo accès Thiès na taxaw cinq minutes ngir autorités yi nekk foofu mën a yëg bu accès njaareem nag tey taxaw ba sëñ Moussa yëg ak njaboot gi mu mel ne euh, directeur euh, gouverneur général brevet moom moo ko jiite waaye àndoon na ceeg leen tubaab bu ñuy wax maaye ak wejje ak sardine nga xamante ni mooy directeur semaine de fer beneen bi ci des mooy directeur commune de Dakar beneen bi ci des moo doon yoroon lu jëm ci àlloyof moo doon saytu yu mel noonu ñoo ñëpp ànd ak moom chef de canton yi gouverneur général wax leen ni leen ku ci yoon wi gën a jege léegi na dàkk Rufisque wala Thiès koo xam ne Touba la gën a jege nag ñu ci des ñëpp na leen fekk Touba bi mu agsee njaareem Cheikh Mouhamadul Moustapha dugg ànd ak Cheikh Mouhamadul Bachir ñoom ñaar la yàlla dogal ci njabootuk sëñ bi ñu fekk ko sëñ Moussa Fall ak ay taalibe yi ak Cheikh Abdallah ñoom itam dugg ba saxaar gi tabaarakalla jëm si Tuubaa ñu ngi wax sax ni sikkar si ñu wax sikkaru Sam Fall foofa la sosoo maanaam bu njëkk sikkar su wataraay lañ ko daan wax wataraay ndax ca biir saxaar ga lañ ko doon sikkare jëm si Touba ginnaaw bi nag sëñ Cheikh Fall gor moo ci liggéey liggéey bu ràññi ko ndax kuréelam yooyu ñu daan àndal nga xam ne bu ñu xëyee ñaari kuréel la ñu doon genn gi dañuy yendoo sikkar bu ngoonee ñu bàyyi ñu ci des jël fanaane ko te muy baatub laa ilaaha illallah bu set wecc ju koy ju koy dàkkantal ci sikkaru Sam Fall waaye foofa la cosaanoo ñu wax ni si Moussa bi mu wàccee ci gaar bi ànd ak tubaab yi gaar bu mag fa la tàmbalee di dox ak tànkam ba agsi daarul xuddoos fa lañ yendu waa kër sëñ ma diba si lay ñoo yoroon seen gaajo gi di tëgg nga xam dañuy tëgg di arrière di tëgg di arrière ba agsi ci barab boobu yi mu doon bis boo xamante ne ni histoire du ko fàtte mukk bis bu fees dell ak mbégte bis boo xamante ne ni sëñ Moussa am na ca mbégte moo xamante ne ni mënee su ko misaal ndax gàllankoor yi ko tubaab yi doon tegal ngir jumaa ji mën a tàmbali gàllankoor yooyu yëpp dagg na ko ndax ci yoonu saxaar lañ ko doon aj te yoonu saxaar gi pare na kon dara desatu ci lu dul sumb liggéeyub jumaa yi Tuubaa ginnaaw boo xamante ne nii tubaab yi def nañ loolu ba pare nag gouverneur général da ko wax ni ko léegi yow sa jaan wàcc na léegi nun noo ci des parce que liggéey bu toll nii ak effort bi nga ci def ak njàmbaar gi faw ñu won ko àdduna mooy dañu organiser waat beneen cérémonie boo xam ne njaarim lañ ko organiser ci buntu gouvernance nga xam ne dañoo indi soldats yi eh, ñu màcc ñu def ñaari tribune benn bi autorités yi ne ci bi ci des chefs religieux yi ne ci ñu dafa takkal Sëñ Moussa médaille croix légion d'honneur mooy décorer ko ci effort bi mu def ndax booba ñeent fukki at ci la toll su tegee itam bëriwut loolu nag jeunesse bi war nañ ca mën a roye ndax fekku fi ay moyens dafa créer ay moyens pour def dara liñ fi def lépp ci jamono yooyu eh, ñoo ko fàggul seen bopp mais fekkuñu fi ay bailleurs yu leen di financer fekkuñu fi ay milliardaires yor xaalis di ko di ko joxe eh, wagg yu nangu rek lañ fekk ak suuf ak jiwu gerte eh, loolu rek ci lañ sukkandiku ba def lii ñu def